Abrazo, Fe. ñëw ci détaillé ko Lamine maa ngi lay fay. waaw maa ngi sant waaw jàmm salaam rek waaw. bon maa bon maa ngi dëkk bi nag ne di nemmeeku mbokk yi ndànk-ndànk. comme combat dafa metti te ñi lay jàppale dañuy bari xam nga susu rek pour remercier ñi newoon ci combat bi di profité di sant ku lu kuy bawal bawal ak képp ku ma jàppale ah ak képp ku doon ñaan moo xam dama toog ak yow wala tooguma ak yow ñëpp maa leen di remercier di sant Sénégal yëpp xam nga di wax ne aw ma seen fayan ah. wër na yàlla taxaw bi ci combat bi lépp mot na lépp rafet na daal yéen. booy dama ne kii comme li ma la waxoon ah bëgguma ok bëgguma dugg si ay détails tey dama yoon suus ci open presse sama frère muy Ndiaye Tine di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla may ndam du dégg loolu moo amoon solo quoi loolu mooy l'essentiel bi mais tey mënu ma dugg ci détail après dinaa leen jël wan by wan kenn ku ne ma defal la plateau lu ma war a wax ak yow ma wax ak yow quoi te du comme niñ ko doon inde rek dañu ànd ak moom ba lam ja bu ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla may ndam quoi. combat yi wuute na parce que adversaire yi dafa wuute. adversaire moom adversaire rek. moom mbër la moom te am nañu confiance ñun li ñu liggéey lañ yaakaar yaakaaruñu beneen liggéey quoi. ko gën a diis loolu du problème quoi loolu moom du problème ci combat Ndiaye Tine Ndiaye Tine. liggéey ngeen ci liggéey ngeen champion waay bu baax. am na ñuy jàpp ni mooy moo ëpp doole. est yàlla rek moo am doole quoi. loolu laa nga wax ni de te koo te yàlla mooy ki am doole leer na. non Sakandé day ñëw ay nappaaje tout. ci yee yëpp day ñëw incha allah parce que Ndiaye li woon dimanche keroog paas nga ko. waaw lépp bagage tegal nañu ko li des moom la ko après mu gérer quoi. te wóolu ko ci côté boobu. Eh,